Restez toujours informés sur SeneInfo. xibaar yi wóote leer ci bile jamono. toujours informés sur SeneInfo. xibaar yi ci bile jamono. fii la mburu bi tàngee fii lay xayam yile jamono dafay gëstu ba mu leer mu soog la ko jox moom xibaar yu wër te leer ci yile jamono internet u seneinfo point net seneinfo international jërë ngeen jëf di am mbégte ak contentement di leen dalalaat ci seen yor yoru seneinfo comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ma di ko amar ak sama naataango yi di Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf ak kii di Kalidou Ba Buur Sine ma bàyyi la ngeen nuyoo ñu daal di tàmbali yoor yoor bi waaleykum salaam soxna Asel maa ngi lay nuyu di la jaajëfal bu baax a baax di nuyu itam uh, sama naataango Kalidou Ba di nuyu suñu cadreur uh, di nuyu mbokku internautes yi nga xam ne kon saa su ne ñu ngi ñuy uh, bàyyi xel ci seen plateforme yu seen info yi di leen kon amaat mbégte bu baax di leen digtal yor yoru seen info Euh, maa ngi lay fay asal euh, di nuyu sama naataango Koumba Ndofen si heure yi di leen dëkkale di di si débat bi si yor-yor fii Seneinfo point net ak euh, Seneinfo international di nuyu seen internet. jërë ngeen jëf Kalidou Boursine jërëjëf tey nag waxtaan bi dinañ ko tënk si huit points yi nga xamante ne nii bi si njëkk mooy euh, ouverture Dakar Médina Gounass ak euh, Macky Sall li mu fa jot a def yëpp bu ñu paree si loolu ñu ñëw si Cheikh euh, Hadjibou Soumaré lettre bu mu bind jagleel ko kii di président Macky Sall ak ay laaj yi nga xamante ne nii samp na ko fa. ba tey rek ñu ñëw ax communiqué bi nga xam ne moom ministre moom ministre des affaires étrangères jël na ko jagleel ko sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk fële ca Tunisie di dalal seen xel bu baax a baax suñu jugee foofu tamit ñu ñëw si polémique bi nga xam ne am na si kii di Ousmane Sonko ak visite bu mu waroon a amal fële ca Léona Niassène si aljuma ju ñu jóge loolu yëpp dinañ si indi ay yaatal ba tey rek ñu continué waat ak kii di Guy Marius Sagna ginnaaw bu mu amaloon ab manifestation fële ca ambassade bu Tunisie jot na jotoon nañ ko fa teg loxo moom nag ak ñi nga xam ni jotoon na ànd ak ñoom si loolu sax euh, dinañ si indi ay yaatal ba tey tamit am na lu si jot a bees ñu ñëw si ARTP ak euh, seetlu ak jàng yi nga xam ne jot na ko faa def jëmale ko si ministère de la santé ñu tëjee ak euh, sport di démb combat bi ñu amaloon diggante kii di Sa Thiès ak Reug Reug ba tey euh, ndam li nag jox nañ ko kii di Reug Reug waaye ba tey ñu ngi wax euh, Reug Reug daanul Sa Thiès moo daan loolu yëpp dinañ si ñëw ak yéen ak ki leeral ay jàngat si loolu ba tey xam naa dañ koy njëkkee rek ñu daal di tijji waxtaan bi Kalidou njëkkee ko ak euh, Medina Gounass fële ca Daaka ouverture Daaka bi président Macky Sall nag dellu woon na fa ak lu mu fa jot a def yëpp si boobu lee si boobule cérémonie si loolu tamit porte parole bi daal na di yëkkati ay kàddu dem sax bay xam ne li fa président jot a def Macky Sall ñetti président yu ko jiitu ñoom ñëpp ba tey amul kenn ku ko fa def xam naa dama leen di bàyyi rek ngeen indi si ay yaatal Kalidou. waaw jërëjëf Astel euh, comme ni nga waxee rek réew mi di président Macky moom. Euh, nekkoon na ci tournée ca Sédhiou gannaaw bi mu fa tabaxee hôpital Cheikh Ahmed Tidiane Ba réalisation yi mu fa def ak pont bu Mar Marsassoum ak euh, yeneen infrastructure yi mel nag maison de la jeunesse ak euh, bâcle bu ak boucle bu Pakao ñi toog leen ni jaar pour daal di dem fekkee ñi euh, nga xam ne comme ni nga ko waxee mooy dàq bu Médina Gounass nga xam ne cérémonie religieuse annuelle boo xam ne day am par année mooy daal di na fa ñëw sëriñ bi. daal di ko wax li nga xam ne mooy yéenem ak mëbëtam waaye tamit pour mu ñaan pour jàmm ci réew mi ki nga xam ni mooy xalifa bi tamit euh, gis nañ euh, mu daal di vraiment magnifier liggéey bi nga xam ne Macky Sall moo ko def jàpp na ne moom la def ci Sénégal ak ci même ci defa ak euh, ci région bu Sédhiou jàpp na ni président yi fi jaar ci staff politique Sénégal Macky Sall li mu ko def amul kenn ko def ci wàllu réalisation wala infrastructure Euh, tamit jàpp nañ tamit si Sédhiou tamit euh, suñu doon ne région tey yàlla ak Macky Sall li Macky Sall def kenn defu ko daal def bàkk daal Macky Sall daal di kañ foofu nga xam ne mooy euh, foofu le foofu ci daak mi dina menace xam naa damay bàyyi sama naataango mu développé tuuti après <laughs> waaw comme ni ko sama Kalidou Ba waxee Daaka Medina Gounass dafa nekk ab événement bu am solo ab retraite spirituelle boo xam ne kon mu ngi amee foofule e, di benn e, kii la sax localité boo xam ne sore na dix li nga xam ne kon moom mooy ville religieuse boobu e, di Medina Gounass foofu Daaka bi di amee muy nag événement boo xam ne am na solo lool lool lool ñu instauré ko fa depuis mille neuf cent quarante deux kii di Thierno Mouhamadou Seydou Ba moom moo ko fa moom moo moom moo ko njëkk def moo njëkk a def euh, loolu di euh, kon cérémonie Dakar boobu ba léegi nag ñu koy amal muy nag événement boo xam ne en plus de sénégalais yi nga xam ne dañ fay teew sax day am ñeneen ñu jógee euh, bitim réew di ñëw di ñëw di fa teew daa bi événement boo xam ne bu am sous bi day ñëw am ñu jóge bitim réew ñëpp ngir teew rek ci ci boobule événement ñu fay def lu toll ci fukki fan yoo xam ne ay euh, julli ay prière jullee ki ñaan ñaan ngir jàmm ci am ci réew mi ñaan naataange ñaan ñaan ñaan en tout cas événement la boo xam ne am na solo lool comme ni nga waxe waxee njiitu réew mi euh, ci cadre euh, visitam boobu mu nga xam ne mu ngi ko doon def ci Sédhiou muy même région bi mu jóge fa itam fa nga xam ne moom mooy foofu la ca Sédhiou dem teewee lii di daaka bi comme ni nga ko waxee gis nañ ki nga xam ne moom mooy. xalifa bu Daaka kontaan lool ci euh, comme li nga wax rek li njiitu réew mi Macky Sall jot a def ci li nga xam ne moom mooy Sénégal wax na ko sax ne maanaam euh, ci moom li def euh, ay près prédécesseur am jàpp na ne ñoom defuñu ko koy mbiru solo njiitu réew mi Macky sàkku fa ay ñaan sàkku ngir mu ñaanal ko ñaanal ko ngir jàmm ci Sénégal ñaanal ko itam ngir jàmm ca ca Afrique waaw luñ ci wutal Daaka bi daal ñu xam ne kon door na. door na ajjuma war a dem ba ci euh, fukki fan ci événement boobu nga xam ne kon ni ma ko waxee sànq rek ay jullee ki ñaan daal lañ fay amal ngir jàmm ak nataange ci biir mu doon lu am solo Buur Sine bu ñu jógee foofu ñu jàll ci Cheikh euh, Hadjibou Soumaré moom nag nekkoon na fi premier ministre 2007 ba 2009 moom nag dafa bind ab bataaxal jëmale ko ci kii di président Macky Sall daal di fa samp ay laaj Buur maanaam nekkul loo xam ne da ko da ko accusé directement mais ay laaj la ko def laaj yi nag tollu na si ñeent mu laaj muy laajte ba xam ndax kii di président Macky Sall euh, dafa jox alal ju takku maanaam lu tollox si douze million d'euros benn benn koo xamante ne nii daal politicien la français xel yi nag dem ci kii di Marine Le Pen parce que moom la ñu gis ne moo fi mujjee ñëw moom tamit laaj na ko si loolu si ban si ban domaine la ko ko joxee lan moo waral mu di ko jox moom euh, Cheikh Tahibou Soumaré lu muy laajte tamit bokk na si lan moo waral moom euh, Macky Sall bu dee jox na ko ko lan moo waral mu di ko ko jox si biir réew si miim réew Sénégal nga xam ne nekk na pays boo xamante ne nii dafa pauvre xam naa ma lay bàyyi nga ñëwaat si yooyu les laajte yi nga xamante ne nii moom Cheikh Hadjibou Soumaré daan na di ko laajte kii di président Macky Sall. waaw comme ni nga ko waxee soxna Atel euh, soxna Astel Cheikh Hadjibou ñu xam ko mu nekkoon fii premier ministre ci nguuru ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Wade kàddu yooyu nag la yëkkati précision bi nga ci defit am na solo euh, même bu dee accusation la lu indirect la parce que mm-hmm. affirmé wul affirmé wul il ay question la ci question yu mu ko laaj kon la boole boobu les questions di ko laaj ndax dafa jox ay kopar mm-hmm. personnalité politique française boo xam ne am na ak moom Euh, audience loolu nag comme ni comme ni nga ko waxee bi mu amee xel yëpp ci Marine Le Pen la dem mi nga xam ne kon moom lañ jiitu réew mi Macky Sall mujjee amal li nga xam ne moom mooy ab euh, audience laaj ne ko nag ndax wante nag li tax maanaam laaj boobu xaw a niroog tuuma mooy sax dafa tudd prix bu exact ci xaalis waaw daf ne ndax jox nga personnalité politique boobule lu toll ci douze millions d'euros ñu xayma ko ci ay ci CFA mu nekk presque huit milliards milliards neuf cent loolu bu amee comme ni ma ko waxee rek donte accusé wo ko directement mais xaw na koo tiiñal xaw na koo tiiñal euh, man sax euh, maa ngi doon xaar peut-être ma ne loolu degré gravité bu fekkee ne am na mm-hmm. lu garaaw lay doon ba sax dina jar njiitu réew mi Macky Sall mu kàddu ci euh, mu àddu ci mais gis nañ déjà ay tontu commencé na am gis nañ kii um traité taxe poste républicaine ah, tur bi lay fàtte Birame Birame Faye génn na ne daal euh, waa ji daal a bës la bëgg rek euh, comme que toog na lu yàgg daal kii dafa muy dafa bëgg a dekkiwaat waa ci wàllum politique euh, ba ba tax mu defee bile accusation wante it foofu peut-être retenu ba xam mooy ki nga xam ne moom mooy Hadjibou Soumaré miinu ñu ko mu nekk kuy waxantu moom doom li mu fi nekk yëpp daal homme d'état bu discret lañ ko xamee ak yooyu peut-être tam peut-être bu jógee ba wax li ni mel peut dafa am fu mu sukkandiku peut-être dafa am fu mu pour sura surtout waaw sur surtout waaw peut être bu ne woon sax rek jox nga xaalis mais le fait que le fait que mu mu wax mu wax mu tudd douze millions xam nga doro euh, mën na am dafa am ci lu mu sukkandiku kon ba tax ba tax daal mu wax mu wax li ni mel euh, comme ni waa sànq nag ñee génn nañ réponse yi commencé na Zahir ki nga xam ne mooy Birame Faye bu tas euh, parce que bi kenn tontu na ko nee na ko daal ab bés politique la bëgg nee na weddi na mbir yi kon nee na loolu amul mais man de ah xaw ma xaw ma li si kanam daal lu muy lu mu ñuy jox mais man maa ngi doon xaar sax ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi si boppam. indi loolu ay leeral parce que quoi ak loolu demee ba war kaa confirmer peut-être dina indi ay ay ay leeral peut-être dina indi yeneen yoo xamante ne nii ay preuve yu koy firndeel daal xëj na moom dina ko indi mais tant que indi ko man gëw ma nii kii di njiitu réew mi dina taxaw di ko tontu si boobu les ah. questions yi nga xamante ne nii jot na kaa posé Euh, Kalidou xam naa dama lay bàyyi rek nga indi nga indi ci quelque nga indi ci quelque précision balaa ñuy jàll si beneen point bi. waaw Asel xam naa comme ni ko sama naataangoo waxee. Mhm. wax na l'essentiel. mais comme ni nga ko waxee rek euh, euh, journal bii di Seneweb ñoom information bi ñoo ko daal di bokk na ci ñi ko njëkk a publier. Mhm. xam le 22 janvier 2022 Macky daal di recevoir ki nga xam ni mooy Marie Le Pen. njiitu ki nga xam ne moo jiite euh, extrême droite fële ca France mm-hmm. mel na lettre ouverte bi Hadjibou Soumaré wax fekkee information yi lu avéré la moom je crois lu grave mm. mm-hmm. parce que euh, c'est vrai que nit ku ne am na sa opinion bopp mais euh, ki nga xam ne mooy Marine Le Pen nit ñëpp jàpp nañ ni li xam ne mooy wàllu air mm-hmm. ak wàllu boo di xam ne rejet de moom ak tamit mu France su ñëwee Sénégal Macky Sall lu tolloo sept virgule neuf milliards kii réew moo xam ne loolu mel ne Sénégal xam ne lépp priorité la. loolu problème mm-hmm. te comme ni ko waxee rek Aliou a ak li ñu xamal moom c'est un homme discret. Mm-hmm. travailleur moo xam ne kenn xam ne ci caaxaan nit ko jub la. ah mais nag am nañu réplique ci côté pouvoir mooy euh, comme ni ko waxee Birame Faye parce que parce euh, que APR moom nee na li mu wax noonu daal nee na lu graaw la te day wut bose pour dégg parti politique nee na fekkee day def politique na du wàcc si terrain comme ñëpp loolu la wax mais en tout cas Euh, loolu noonu fekkee lu am la je crois quand même loolu loolu loolu loolu nekk na loo xam ne politique fi mu toll actuellement ci réew mi nga gis politiciens yi pare pour def lu nekk ngir jot ci réew mi est-ce que kooku noonu Birame euh, biram fay li mu wax noonu est-ce que nekk loo xamante ne nii tamit mën nañ ci bàyyi xel que dafa wax loolu ngir euh, dekkiwaat ci mbirum politique bon ambition politique bu Adji Mare xamaguma ndax je ne pense pas am na parti mm-hmm. mais li am solo bi am solo mooy Birame Faye nee na Macky Sall benn livre la ko jox mhm. livre bi li si nekk mooy dialogue des civilisations xam nga xam nga euh, Marie Le Pen day jàpp ni moom daf nekk koo xam ne dafa am benn parti boo xam si nit ñi dafa leen bañ mhm. moo tax livre boo nee na Macky la ko jox pour mu xoolaat jikkoom xoolaat moom par exemple ni mu jàpp ni fu mu changer mentalité quoi mu xam ne civilisation yëpp ñu am ñu civilisation yëpp ñu am ay valeurs yu baax ñu universel kii gën Mm-hmm. parce que ñu parce que na jàpp na ni Marine Le Pen moom dafa nekk koo xam def extrême jàppal na benn côté rek moo baax alors que li dina la permettre comme ça moom par exemple mu dugal dégg la kan defaraat moom noonu la ko jàppee mais en tout cas Hadjibou Soumaré ku am expérience la nekkoon inspecteur trésor ministre budget a premier ministre donc mu ne wax ne am na jaar-jaar mm-hmm. il y a quelques années sax Macky Sall jàppale woon nag pour mu nekk candidat pour gagner IMO pour mu nekk candidat si sous région malheureusement mu jëwul jàll parce que yenn pays Afrique comme ay giri yu mel noonu ndax dañu am problème contentieux ak Sénégal peut-être depuis indépendance bi léegi ñu ngi fàttali wu mel hmm. loolu moom vraiment xam euh, nga xam nga président dafa doy waar que mënoo toujours di tontu. Hmm. di toll si mbedd mi am na problème. dina fay moom wax na mais je pense loolu c'est insuffisant. Hmm. parce que quand même na ñeneen ñoo ñu ëpp daayoo ñoo xam ne war nañu wax. communiqué waa ñu génn si présidence. wala mi léegi sax bi mu recevoir Marie moom waroon na mën a benn vidéo bu wax. lan moo nekkoon objet kii bi. effectivement. objet boobu les rencontres. d'accord euh, jërë ngeen jëf si yooyu la yaatal lu ci mën di am rek après niñ si ñëwaat ak yéen seen yor-yoru seen info ba tey rek ñu continuer ak kii ay Aïssata Tall Sall nekk ministre des affaires étrangères moom nag daal na di yëkkati ay kàddu jëmale ko ci sénégalais yi nga xam ne ñu ngi dund fële ca Tunisie ginnaaw bu président tunisien bi daal di yëkkati ay kàddu yoo xamante ne nii. ñu ngi koy euh, jëlee kàddu racisme la moom nag yëkkati na kàddu yooyu jëmale ko ci ay africain euh, africain yi nga xam ne ñu ngi fa daanaka doonaka ñoom sax ay africain lañu maanaam euh, der bu ñuul ci loolu tamit sénégalais yi daal nañ di dundee ab benn tiit boo xam ne mu ngi nekk ci ñoom kii di Aïssata Tall Sall nag di dalal seen xel di dalal seen xel dafa indiwaat ab benn sécurité di rassurer yooyu les sénégalais di leen xamal tamit ne képp ku si pare ngir euh, si rek ñoom moom dina tekk bépp disposition ngir euh, këpp ku pare pour ñëw ñu jàppale la ngir nga ñëw Bour Sine dama lay bàyyi nga indi si ay yaatal rek. effectivement comme ni nga ko waxee soxna Asel gannaaw kàddu yooyu nga xam ne kii di njiital. Tunisie di koy seet yëkkati woon na ko teg ko ci euh, daal euh, migrant yu Afrique subsaharienne yoo Sénégal bokk na si dafay mhm. ñëw ne daal ñoom source ay violence daal lañ fay indeeg insécurité ak euh, yi ni mel ak sax ñoom dañoo bëgg a africaniser li nga xam ne moom mooy moom mooy Tunisie dindi leen ci caractère arabe arabo musulman mhm. ba ñu nekk loolu nag gannaaw bi amee gis nañ ne dafa am ci li wax ci li ñu rapporté am na ay doomu Afrique yu fa nekkoon yu commencé ñu fa nu tàmbali di buntu xataal mm-hmm. d'ailleurs sax euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Côte d'Ivoire ak waa Mali mm-hmm. jot nañ euh, commencé woon nañ benn processus rapatriement bu trois cent ki seeni ay doom euh, parce que gannaaw kàddu yooyu comme ni ma ko waxee rek ñu bëri rapporté nañ ne suñuy doom suñuy naataango yu Afrique commencé woon nañ fa am am ay jafe ay jafe kon ba tax loolu am wante li mel nag bu ñu sukkandikoo ci euh, communiqué boo xam ne comme ni nga ko waxee ministre ministre des affaires étrangères de Sall Sall génne na ko bésu ba démb nee na ba fi mu nekk nii daal loolu ñuy wax menaces yooyu ak kii concerné gul kenn ci doomu Sénégal. Mm-hmm. ñu wax noonu affaire bi amee itam ñoom jot nañ fa teg benn cellule de crise mu amit numéro vert boo xam ne ñi nga xam ne ñoom ñooy doomu Sénégal te ku si bëgg peut-être entrer encore contact ak bi mu mën a mm-hmm. yomb ku ci nga mun ko wax. ñi nga xam ne ñoom ñooy waa ambassade bi ku ci bëgg a ñibbi it ñu ne instant yi def nañ ay disposition ba képp koo si xam ne da ngaa ne dañ la menacé wala danga ngaa ragal wala demee noonu boo bëggee ñibbi si dinañ la jàppale kon ba nga ñibbisi nga ñibbi euh, fii ci Sénégal en daal ñoom nee na ñu ngi suivre situation bi de près jëpp mbir mi bu mu bi mu bi mu amee kon it euh, yaar na nañ dalal d'abord xelu Sénégalais yooyu dinañ dalal it xelu seen ay mbok ñun ñi nga xam ne ñu peut ku ci amul mbokk yenn saa yi di nga ci am xarit wala demee noonu bu nekk bitim réew kon nañ dalal seen xel dalal en même xelu ñi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk fii. Euh, kon ñoom kon ñoom daal li ñuy xamle mooy euh, loolu depuis mu am ba tey euh, wàllum violence bi ñuy wax ne ñoom ñoom africain ñuy nekk foofu ñu koy dund laalagul benn sénégalais voilà laalagul doomu sénégalais kon daal ñoom képp koo xamante ni am na si ay jafe-jafe wala nga bëgg ñibbisee. boobule yooyu disposition mu teg dina la jàppale pour que nga mën a ñibbisee Kalidou ma bàyyi la nga indi si ay yaatal. waaw jërëjëf Astel comme ni ko naata nga waxee. Mm-hmm. Euh, kay sayit gannaaw bi mu waxee ni af maanaam ressortissants africains subsahariens ñoo indi problème nekk foofu yëpp ñoo salfaañi dëkk bi indi violence indi stabilité. Mm-hmm. Eh, ba ñu leen di ñu bari dàgg nañ sax seen contrat ñeen nañu dàq leen ñeen ñu génne seen appartement ñeen nañu mënuñu jàng et cetera mm-hmm. gis nañ sax pays mel na Côte daal dina génne lu daal dina prêter trois avions pour pour ñu daal di répartir lu mel lu toll ak euh, cinq cent euh, ressortissants ivoiriens ak euh, Guinée mm-hmm. nga xam ne environ plus de cinquante personnes c'est vrai ministre bi Aïssata Sall waxoon na ni sur la crise bi la ñëwee mais gannaaw bi pression Euh, pression bi xam ne moom am surtout ñi xam ne ñooy am seen doom te ñu nekk foofu la dépression mm-hmm. jàpp nañ ni léegi war ñu mun képp koo xam ne bëggoo ñibbi nga ñibbi si waaye koo xam ne bëggoo ñibbi si tamit daañu fexe ba aar ndax nee na stigmatisation boobu considéré wul sénégalais mais en tout cas image moom c'est choquant c'est parlant parce que ñu ngi koy comme sur Twitter ñoom na ñoo xam ne vraiment ñu ngi dund lu métti foofu mm-hmm. waaye Tunisie moom mu ne wax ne presque c'est dictature la mos a dund te ñoom dañu mos a considéré seen bopp comme maana daal comme ay arab nga Ben Ali bu nekkee président pendant vingt ans c'est ministère des affaires étrangères bu Tunisie mosul def benn voyage en Afrique loolu rek li ma wane naa quelque sorte mooy ñoom soo xoolee ci nii weex la ñu seen bopp mais am solo am ba am solo mooy que nañu fexe ba Sénégal ñu ne foofu ñu aar leen xam nga nga si dëkk dem si dëkk mu am problème pour nga ñibbi def métti parce que da ngay jàpp ne sa terrain foofu la nekk su ne bu na xataal sax doo man de sama xalaat ne ñi nga xam ñoo nekk foofu même fekkee mën na leen aar nañ leen bàyyi mhm. mais comme bu jël bi rek ñu ñibbi si parce que quand même métti na nit dem si dëkk même fekk dafa am problème ñu ne la nga mais nag li am solo mooy jamono ji man dama gëm ni violence ak stigmatisation wala wala mu nekk loo xam ne day triompher ci jamono bi ñu toll ci vingt et unième siècle mhm. programme ak wala teg ay politique publique leer naa ñi moo def war mun génnee mhm. président Tunisie bi fekkee moom si boppam euh, fekkee moom si boppam def ni nous autres ñun africain ñu indi problème mhm. le revanche politique yi moo def fekkee daf leen génne sax mu génne leen euh, façon boo xam ne jur coow mais nag fekkee dafa jëm woote ci li nga xam ne mooy génocide ak wàllu violence nekkul am pour man programme ak def ak bonne gouvernance ak teg ak politique publique yu leer mooy li xam ne actuellement moom la ñu xam ne moom la njiit réew mi war privilégié d' accord Kalidou Euh, jërë ngeen jëf si yooyu lee yaatal ba tey rek ñu continuer ko ak polémique yi nga xam ne jotoon naa am si mbirum euh, Ousmane Sonko ajuma ji ñu jógee ginnaaw bi mu waroon a dem naa ñaseen pour julli fa ajuma ji am nag benn communiqué bi ñuy jot gis. nekk euh, xalif bi daal da ko wax ne bu mu ñëw ndax ndaxte soxlawuñu ay euh, comme dañoo jàpp tamit ne li xewoon Mbàkke xëy na loolu lañ doon bañ mais d'après les informations gis nañ ne moom xalif bi nee na yëgul woon boobu lee communiqué maanaam du moom moo ko rédigé dama leen di bàyyi rek Buur Siin nga am loo ñu si apporter waaw comme ni nga ko waxee soxna Asel nekk na mbir moo xam ne euh, juróon na coow lu bëri mhm. nga xam ne moom mooy Léona Niassène gannaaw bi nga xamee ne nag kon ni nga ko waxee dañ fa annoncé woon kii di Ousmane euh, Sonko ngir ñu amal fa euh, julli ajuma ci jamono joo xam ne nag Léona Niassène euh, ci lendemain bi dañu waroon tambali li nga xam ne moom mooy ziara annuelle bi fay am ñu déjee ko à xalifa maam Khalifa maam Khalifa Niass mm-hmm. ci vendredi bi nag kon la fa njiital Pastef li waroon dem comme ni nga ko waxee ci yooyu nag la ab communiqué génn communiqué boo xam ne nag dañ ne xalif bi moom moo ko amal mm-hmm. wante man am na ku ma ku xam ne proche la sama naataango la journaliste te prof euh, proche la ci nga xam ne mooy famille boobule nee na communiqué boobu ñi nga xam ne ñoom ñooy ay doomu xalif ñoom ñoo amal euh, boobule communiqué doomu xalif nee na ñoom ñoo ko ñoom ñoo amaloon euh, communiqué boobule quoi par la suite nag na nañ ñeneen membre ci famille bi génn ne comme dem ci benn sens dem dem sens contraire que li communiqué wax ne en tout cas le leader Pastef il est le Moussa la ñëw il est bienvenu gis nañ imam bi génn na wax na loolu yàgg ni sax comme genre doomu xarit yu tudd El Hadj Niass mhm. ko ko te kooku ministre de l'intérieur ma nekk ci gànnaaw ah. benn mën na nekk effectivement loolu am na solo euh, bi loolu amee comme ni waxee seen élément bi génn na moom it tam li mu wax euh, nee na ñoom Sonko il est le ñëw il est le euh, ki nga xam ne moom mooy porte parole tam bi mu defee sorti même sens la même sens que ne imam bi ci la ci la dem par la suite aussi gis nañ ne biñ demee ba ci ngoon Ousmane Sonko ñëw na ki nga xam ne it mooy porte parole bi moom moo ko dalal porte parole bi moo ko mujjee dalal ba waxtaan moo Ousmane Sonko it ci prise de parole am xamle na ne li tax peut-être ñëwul dafa nekkoon ci voyage nee na it jokkoon ak ki nga xam ne moom mooy xalif bi moom nee na moom xalif bi nee na ñoom ñaar ci lañ tënk pour mu ñëw ci li nga xam ne moom mooy euh, waxtu boobu nga xam ne kon moom la fa moom la fa demoon kon loolu on sous-entend que kon euh, peut-être euh, Ousmane Sonko nekkul ne dañ ne ko bul julli si <laughs> bul julli si juma waaw ci li mu waxaa kon waaw kon ñu sukkandiku daal kon ci wax Sonko mbir mi noonu la demee nekkul ne dañ ne ko bul ñëw mais maanaam ci ab waxtaan boo xam ne daf ko waxtaan ba d'accord ki nga xam ne moom mooy euh, xalifa bi ci lañ retenir ngir mu ñëw waxtu boobu moom it waxoon na dafa jógewoon voyage ak tout ça affaire de en tout ak ak nu mu si mën demee daal juróon na fa coow xëccoo mm-hmm. man peut être loolu nag li ma si am mooy comme kii lim su li ngi sànq lu am solo loolu peut être dafa am foofu mm-hmm. ñu faree fii ñii dañoo faree ñii dañoo faree côté pouvoir peut être ñii faree Ousmane Sonko ba après coow li coow coow li jóg ndax Sonko sax boo gis si biir waxam mu ngi leen di junj naan leen maanaam bu leen nangu bu leen nangu peut être ñu leen di déploo yoo xam ne day tax euh, ñu indi leen ñu xeeb li wala demee noonu mu ngi wax quoi maanaam di leen am na lu muy junj foofu ci wax ci wax ji foofu waaw nu mu mën wax jooju daal xam naa loolu man wax jooju loolu laa si loolu a jàpp bu ko tënkee daal kon mel na ni euh, Ousmane Sonko kon euh, comme que nee na moo xalit bi réeroo wuñ peut être ñu jàpp loolu kon euh, réeroo wuñ looloo taxoon peut être julliwul kon ajuma ci li nga xam ne moom mooy bésub ajuma boobu foofu la ca Léona Niassène quoi. d' si communiqué bu ñu jotoon tamit ñu ngi wax ni moom. moom Ousmane Sonko xalif bi da ka wax ni bu mu ñëw foofu julli si fa Kalidou ma bàyyi la nga am euh, loo fa indi. as ah, asel comme ni ko euh, sama naataango waxee mu mel na euh, ci information xam ne am nañ ko Ousmane Sonko moo dafa am candidat boo xam ne yi jàpp nañ sa def saturé ndax dafa nekkoon jigéen soor mu ni fekkee li jëm ci ziara maam xalif ñes il faut mu ñëw. Mm-hmm. parce que bésam la dafa jël avion dekk jóge jigéen soor ñëw foofu. Mm-hmm. waaye gis nañ li nga xam ne mu fuité te mooy benn communiqué boo xam ne. jàpp nañ ni ki nga xam ne moo ko def muy tudd El Hadj Niass nekk doom si xalif bi moom moo jël communiqué bi à l'insu de la famille nga xam ni xalif bi général bi yëgu ko mu def si kasi xalif bi ensuite jour euh, kii bi ñu daal di tëj li nga xam ne muy bunti Ousmane Sonko bañ am accès am ñoo xam ne jàpp nañ ni El Hadj Niass moom Ousmane na Seck nga xam responsable politique nekk ci Kaolack mu nekk ci grand ak ministre de l'intérieur ndax recevoir nañ lu yàggul te moom jàpp nañ aussi nekk na koo xam ne yàggoon si diaspora bi mm-hmm. parce que li mu nekk Medina Baye euh, bariwul mais en tout cas ki xam ne moo teewal. Léona Niassène waaw ki nga xam ne moo teewal Pastef Pastef Ousmane Sonko foofule euh, moom euh, te sant Niass jàpp na ni ko waral mais di dina bàyyi acteur politique yëpp xaj. ñëpp ñoo fa xajoo. Léona Niassène yaa ngi <laughs> ñaari foyer religieux yu bokkul la. Medina Baye ak Léona Niassène. waaw ñaari foyer religieux yu bokkul la quoi. Euh, en fait en fait en fait en fait en benn kii bi la mais dafa am benn famille bila non non garaawul non expliqué li ngeen <laughs> voilà lépp si Kaolack la mais dafa nekk ñaari ñaari ñaari famille quoi en ki nga xam ne moom moo sanc Léona Niassène muy maam Khalifa Niass ak Baye Niass mi nga xam ne euh, moo sanc Medina Baye ñoo bokk benn baay muy maam Abdoulaye Niass le grand waaw ah, loolu la quoi mais ah, ah, mais même famille même famille bi mais dafa dafa kii en ñaari foyer quoi foyer bi nekk Medina Baye bi nekk Léona Niassène mbir bi nag mu ngi xewee Léona d' en tout cas ñu mënti am sonn mujj na fa ñëw ba par parole daal di ko recevoir wane que ni dëkk bi acteur politique yëpp ñëpp am nañ si wàll ndax maam Khalifa Niass nekk na koo xam ni ñëpp ñoo bokk waaye li am solo rek mooy dem bu ko revenir ci gis nga Sénégal tarixa yi dañ si am solo lool ak kër sëriñ mm-hmm. gis nga dafa am benn chercheur bu tudd euh, Donald Chris O'Brien moo dafa théoriser le contrat social sénégalais mu ni Sénégal euh, ni moo doxee dafa wuuteeg Afrique mm-hmm. maanaam kon Sénégal ñett moo fa am neen ya am état am am le marabout am le talibé maanaam état bi mm-hmm. dafa moom il a besoin ki nga xam ne mooy mooy sëriñ bi talibé bi aussi il a besoin de sëriñ bi ku ni ku ni ah, soxla nga sa morom mm-hmm. dafa théorie nga xam ne mooy kon maanaam ah, si moment boobu xam nga soo xoolee bi ñu génnee indépendance kilifa diine yu bari dañu daan fi woon ci benn parti politique ñuy voter sax Tange Senghor gis nañ fi en 1988 ki gis nañ Tange Senghor ki nga xam ne moo nekkoon xalif général des Mourides di Serigne Fallou Mbacké si élection présidentielle eh, mu ne Senghor seen sa kaw loolu en quelque sorte loo xam ne daf ko lancé rek pour communauté Mouride yëpp identifié wu ñu voté Senghor gis nañ aussi Senghor ndam bi nga xam ne moom la ci amoon ak gis nañ aussi même Tivaouane xalif Delor xam ne mooy xalif Aboubacar xalifa Aboubacar si mooma daal dina jàppale ci nga xam ne mooy Senghor waaw euh, mais Abdou Diouf moom xoolee moment bi euh, dafa daal di ñetti parti moo amoon boobu mooy li nga xam ne mooy parti BRS parti bi nga xam ne mooy parti Senghor ak parti Mamadou Dia mais moom bu ñëwee dafa dafa créé li nga mooy multi parti ñu fexe ba parti yu bëri am. Mhm. soo xoolee moom def moom soo xoolee dafa créé benn bu ndaw ñu attaqué si ñi de façon frontale. Mhm. Abdou Abdou parce que jàpp nañ ni moo tax ba jeunes yi bàyyi changé conscience léegi soo xoolee léegi si wàllu politique léegi ils sont indépendants. ñu mm-hmm. déglu kenn ñu déglu kenn ñu am ñu am lu si même mémoire yi mu bind sax dafa juróon coow d'ailleurs euh, mémoire yi mu bindoon parce que wax na ne en réalité moom gumul benn sëriñ bi mu perte pouvoir en réalité li li am solo bi am solo mooy euh, euh, kër kër diine bi ñu am solo ndax libéré la ñoo xam ne ñu permettre vraiment ñu daal stabiliser réew bi waaye ñu fexe ba vraiment ñi ñi xam ñoo réew mi suñu jàll ñu wax leen ñu fexe ba ñi nga xam ne mooy bànqaas yi ñu daal di taxaw effectivement Mm-hmm. d'accord Oscar euh, euh, yooyu lay jàngat am na si solo torop ndaxte sëriñ si tamit euh, si la ñu bokk dañ leen war a bàyyi yenn saa yi ndaxte jàmm réew mi pour ñu am ko foog naa ne sëriñ si tamit dañ see war a prononcé wu bu baax a baax kon li nga wax noonu nekk na lu am solo si loolu ñu continuer ak kii di Guy Marius Sagna moom nag yoon moom nag jàppoon nañ ko ginnaaw bu mu demee woon si ambassade Tunisie doon fa amal ay manifester moom ak ñi mu àndaloon jàpp nañ si ñu bëri parce que dañ leen euh, jàppee maanaam ci euh, manifestation non autorisée maanaam boobu la manifestation ñu doon def autorisé wuñ ko ci euh, loolu ñoom dañ doon naqarlu li nga xam ne mu ngi xew actuellement Tunisie ñu di ka fa def ñu di ay africain Kalidou ma bàyyi la nga am loo ñu ci apporter rek. waaw ah, démb gis nañ ki nga xam ne mooy grippe ma kii Mari Sagna di njiital FRAPP France dégage. Euh, mooy front révolution antipopulaire front révolution anti impérialiste populaire et panafricain moom ak ki nga xam ne mooy ay compatriotes am ñu ne FRAPP waaw ci samedi bi ak ki nga xam ne mooy euh, secrétaire général bi di Gérald Koïta ñoom daal leen teg loxo mm-hmm. dinañ interpellé ndax jàpp na ni manifestation autorisé wuñ ko parce que préfet dafa tere uh-huh. ñoom jàpp na ni ñoom seen droit la ñu war exprimer seen seen frustration mm-hmm. jàpp naa ne rek comme réew réew soo déposé fekkee ki xam ne moom moo la interdit peut être am peut am na motif ndax nee na trouble à l'ordre public la wax maanaam mën salfaani li nga xam ne mooy mooy kaaraange réew mi mm-hmm. jàpp naa tamit euh, ni ñi nga permettre ni ñi daal exprimer wu seen mer dafa am solo mm-hmm. ndax kanam xol su fekkee dafa am frustration yu si nekk su yàggee dina exploser moo indi parfois mi tàkk mm-hmm. te suñu waxee ne dëgg te yàlla daanaka euh, nguur nguur Macky Sall quand même bari na ay manifestations yu fi interdire ces temps Mm. bari na lool lool lool te bokk na li xam ne mooy démocratie yi noyyi mooy li nga xam ne moom moo la naqari si réew ngay exprimer de façon pacifique mm. te jàppal naa ne suñu defoon naa de façon pacifique mm. c' est vrai bi affaire bi amee Tunisie mm-hmm. euh, gis nañu ambassade bi Tunisie bi dafa dafa dalaa di barricade lépp journaliste sax mun am accès mm-hmm. pour am information bu lépp la ñu barricade je crois quand même tamit war nañ tamit nit ñi wu parce que fekkoon Sénégal moo doxalee noonu man jàpp naa ne Tunisie ñoom daañu mm-hmm. bàyyi gis nañ aussi ki nga xam voilà ki nga xam ne moom Mimi Touré bi ngi jàppee bi ngi daal di daal di ko masawu mais en tout jàppal naa ni daal war ñu bàyyi vraiment nit ñi ñuy génn seen frustration ñu leen naqari ndax tamit démocratie dafa nooy mais mais est-ce que war nañoo def ñoo def képp koo xamante ne ni am nga lu la naqari nga dem tamit manifesté wu parce que manifestation yu ñu doon gis avant ak dernièrement manifestation yu ñuy gis euh, du benn parce que day bëri ay violence et tout suñu compter ci loolu est-ce que pour protéger nit ñi gënul a tax tamit ñuy interdire yooyu le manifestations bon c'est vrai loolu c'est vrai loolu dëgg mun na am tamit euh, débordement mun na infiltration mais jàpp naa ne quand même Sénégal ak lu munti am tamit am na am na ay forces sécurité yu doy mm-hmm. pour ah, pour nit ñi parce que gis nañ quand même Ousmane Sonko su amee procès Dakar ni koy bari garé <laughs> Dakar yëpp doo am foo jaar euh, Sénégal amul peut-être ñoo am seen petit bopp mais je ne pense pas que Sénégal am nañu ñu assez sécurité am nañu ay ay ay takk der yu doy euh, si arrestation kooku de Guy Marius Sagna ak yi ñooñu am si dernière information sax yi dafa mel nii dañoo dégg ne daal nañu leen di bàyyi ñoom ñooñu ñu téye woon si boobu les manifestations. waaw euh, libéré nañu leen mais man de li ma jàpp sax moom mooy euh, jaruloon sax ñu leen di jàpp man pour man jaruloon ñu leen teg loxo. li ni mel daal euh, comme ni nga ko waxee rek nekk nañ ci réew moo xam ne comme pays démocratie la ku am lu la métti peut-être mën nga dem mën nga dem mën nga dem joytu ko euh, naqar lu ko ñoom lu lu jiitu ab sitting lañ sàkk woon ne dañ koy amal ci li nga xam ne moom mooy euh, foofule ci devanture li nga xam ne moom mooy ambassade bu Tunisie ci Dakar ñu lankal leen ko te ginnaaw ko rek la ñuy décider dem déposer ab lettre mmh. de protestation ca lettre boobu nag comme loolu rek ñu say ŋàññee ñu say ŋàññee li nga xam ne kon moom la kay seet waxoon jëmale ko ci migrants yu Afrique subsaharienne ba mu jur benn polémique boo xam ne mën naa ne mondial la loolu lañ doon loolu lañ doon naqarlu yaakaar naa ne waroon nañ leen mën a encadrer comme ni nga xam ne comme am nañ assez de am nañ assez de force moom suffisant comme ni nga comme ni koy génnee si yeneen événement bu amee pour man waroon nañ leen mën a encadrer rek bàyyi leen ñu dem déposer seen kii ah facilement ñu bàyyi leen ñu ñu bàyyi leen ñu baat moo gënoon en tout cas coow li si am ak jàpp yeeg yi ni mel ak li mel beneen beneen beneen côté bi tam gars yi tam euh, beneen côté bi tam muy activiste muy euh, peut-être opposant il faut que tam yenn saa yi ñuy am ñu xam bu fekkee nan laa ko mën a woowee il faut waaw ñuy daal il faut daal yenn saa tam ñoom ñuy reculer tuuti quoi mais buñ di a di chaque fois rek di avancer songu di ànd ak xada di kii waaw ñoom tam voilà matt ba ñuy bàyyi waaw dañuy ñoom tam yenn saa yi dañuy dañuy dañuy apaiser quoi dañuy def loo xam ne peut-être day apaiser li nga xam ne moom mooy moom mooy tension bi léegi beneen jàngat bi ma si am moom mooy euh, kaaw kaaw Guy Marius Sagna quoi en tant mais maanaam tey est-ce que ñi nga xam ne euh, ñoom ñooy force de l'ordre ak ndax dañ koy continuer di daa mel ni dañ koy continuer di considérer comme benn activiste rek bi mu nekkoon simple activiste. parce que quoi qu'on puisse dire léegi nekkatul simple activiste. c' est un député c' est un député de la de de de la république. donc am na ñoo xamante ne sax dañuy fàttali ne député la. activiste moo tax ah gis nga léegi kon yaakaar naa it même buñ koy même bu fekkee dañ koy attaque dañ koy kii ndax député. kaam waaw député kaam melul situation am. satem melul comme sati ñeneen ñi. kon it waaw kon it tey war nañ war nañ jël en compte. il faut que ñu jaar assemblée pour ñu dindi seen immunité parlementaire. waaw problème sax mooy problème bi mooy ci cas bi euh, effectivement li nga wax problème mooy loolu c' est c' est pose la question quoi maanaam ci ci cas est ce que tey amoon nañ rek ñëw comme ni embarqué ñi nga ne peut être euh, simple membre lañ wala simple ah. moom moom est ce que est ce que est ce que dañ noonu noonu lañ ko embarqué ko gars en même temps ci nga xam ne mooy pour fourgon euh, police bi loolu tam laaj la daal bu may samp peut-être ñi nga xam ne. après ñu laaj ko suñu juriste bi ba xam ndax euh, immunité parlementaire dina ko protéger si boobu le côté ndaxte dañoo wax ni si manifestation non autorisée lañ ko lañ ko jàppee. voilà si loolu xam naa euh, dinañ ko jeexalee ak sport mais laata sport bi di ñëw ñu dem ci ARTP ak ministère de la santé si procédure yi nga xamante ne ni dañuy wax ni dafa illégal Kalidou bàyyi la nga am loo ñu ci indil laataa ñuy tëj ak sport bi. waaw affaire sa information boobu parce que soo xoolee depuis janvier la woon mais temps yi ñu ngi soulevé ci kii bi ñu ngi soulevé ci toile bi. Euh, ci journal Les Échos. xam nga euh, dafa am benn projet d'investissement bu toll six milliards ci ay produits yoo xam ne produit euh, médical biomédical yoo xam ne dafa faj li jëm ci wàllu. néonatologie service néonatologie mooy comme genre nempante xale yi ak wàllu réanimation bu tolloog six milliards mhm. jàpp nañ nag biñu defee euh, ki nga xam ne mooy BADEA di banque africaine banque arabe des États de l'Afrique mu ngi financé tolloog six milliards mais jàpp nañ ni biñu defee appel d'offre bi si ñetti loolu la amee d'abord mhm. léegi le un bi gis nañ ni di nga jox benn société bu tudd mhm. de deux milliards alors que am na ñoo xam ni dañuy postuler pour un milliard par exemple pour un milliard et quelque pour deux cent mille foofu noonu am na fraude lu tolloog huit cent millions jàpp na ni am na illégal irrégularité lu tolloog huit cent millions mm-hmm. lot deux bi jàpp nañu ministère bi ñu distribué médicaments yi ci lot deux bi ci lu tolloog euh, deux cent soixante huit am na ñoo xam ne dañuy proposé deux cent vingt millions benn benn société soumissionnaire am ku proposé deux cent quarante millions mm-hmm. ñoom ñu daal joxe ministère préféré joxe ci deux cent soixante am na am am na par exemple écart lu tolloog vingt millions ñu gis aussi si lot 3 bi si lot 2 bi Carrefour Mérical lañ ko jox mais lot trois bi dañ ko jox euh, ba société bu tudd ACD gis nañ ni lu tolloog plus de deux milliards euh, gis nañ ñaari société yoo xam ne daal di proposer appel boo xam ne moo gën a moins kenn ki un milliard kenn ki un milliard et nañ mu am écart lu tolloog un milliard loolu nag ay irrégularité la moo tax benn société bu tudd Pamaret moom daal di bi mu gisee irrégularité yi dafa jàpp ni dañuy violer procédure euh, code des obligations ci wàllu RTP ARTP mais mm. ci daal di saisir ARTP pour ñu xam ne ñu daal di euh, annulé loolu wala su ku defee daal ñu daal di vraiment indi pour ñu teg leen si yoon parce que jàpp nañ ni procédure dafa illégale mais ministère ñoom tamit nee na nee na def nañu nañ parce que nee nañ ñoom lu tax retenir nañu société yooyu doon am donte ni li xam ne moom lañuy moom lañuy proposé moo gën a sax lu la retenir lu tax di retenir loolu mooy maanaam problème technique la ñu am ñoom te loolu la ñuy daal problème technique la ñu mais en tout cas ñoom daal daal nañ taxawal benn collectif di PAMAREL pour ñu fexe ba ARTP daal daal jëm jusqu'au bout ci li nga xam ne moo ci loolu noonu nga xam ne ay produits médicaux la yoo xam ne ministère bi moo ko doon distribué jàpp nañu aussi daal am ay fóotu wala am na luubal ndax quand même fekkee par exemple yow junne nga kenn ngay proposé produit ñoo jox ma si deux mille cinq cent nga préféré par exemple nga pré nga préféré par exemple joxe six par exemple peut être dañ jàpp ni procédure bi si code des marchés dafa daal di am xam ne dañ ko mais li li wax soof rek mooy d' ailleurs war interpellé ñi nga xam ne ñooy autorité yi pour su ko defee ARTP rapport ñoo def ñu ko top discours gis nga il y a quelques années il y a moo tax sax un an si benn interview Macky Sall nee na rapport ARTP mu ne moo teg cancan moom loolu yenn rapport yu bari dañ jëm si ñi nga xam ñoo bokk ci moom moom reconnaître ak mooy teg coono te yaakaar naa gis nga gars yi dañoo topp ni manifestation yi dem projet topp acteur politique yi mm-hmm. Sénégal dañu war a yow maanaam gëm naa ne yu mel nii la Sénégal di war a manifester mm-hmm. maanaam fekk lu ba alal réew mi dafa am ñu daal di manifester génn pour su defee rapport daal di leer ñu ñu teg leen yoon wala ñu jéem alal réew mi mm-hmm. mais toujours lu ñu jël ay politiciens ñu leen topp uniquement pour utiliser leen comme ay chiffon sànni leen soo xoolee Sénégal loolu la yéen utiliser comme torchon mais suñu tool yi ñu fàtte lépp je crois que li nga xam ne mooy rapport bi ART bi di génnee suñu épingle ay société yu mel ay ay par exemple yu mel peut-être Lonase wala Poste wala yu mel noonu mm-hmm. askan ci loolu la ñu war mu mm-hmm. leer mais pas toujours ñu utiliser comme ay comme ay chiffon. jërëjëf Kalidou si yooyu le leeral am na solo torop si loolu xam naa dañ koy jeexalee ak mbirum sport rek di mbirum làmb mi nga xam ne amoon na démb si diggante kii di Sa Thiès ak Reug Reug moom nag Sa ginnaaw bu mu njëkkee daan arbitre bi joxewul njëkkee am bu mu një bu njëkkee am lu fa xew sax laay wax ndaxte du man maay joxe du man maay joxe ki daan nee nañu Sa Thiès daal moom dafa xam ne ni moom moo njëkk daan kii di. Reug Reug mais victoire bi ñu ngi ko mujjee jox kii di Reug Reug ndaxte si mujjeelu jël bi nee nañ moom moo daan Sa Thiès nag d'accordul benn yoon démb rek ñu ngi koy gis mu naan ni day déposé lii di recours moom ak ñu mu àndal ndaxte d'accord ñu Reug Reug tamit di xamle ne daan na ko ndaxte moom ba euh, naka laa ko waxee <laughs> René tamit di xam le ne daan na ko ndaxte moom euh, ñeenti ñeenti li ñuy wax quatre appuis ñeenti appuis moom kii di Reug Reug moom xam na ne ni mu jeewu ko def daal xam naa dama lay bàyyi nga am loo ñu si rapporté le buur balaa ñuy tëj. waaw soxna Asel euh, yaakaar naa euh, du Sa Thiès rek moo ci d'accordul yaakaar naa loolu moom ñu ci d'accordul bëri na parce que image yi gis nañ ko bi ñu toogee en tout cas xoolaat image yi gis nañ ko bu ñu ñaatee si combat bi ñoom ñaar bi jàppante am na benn première action bu am. Mhm. ci action boobu nag euh, peut-être gaaw na gaawaay boo xam ne xam naa échappé na vigilance bi ki nga xam ne moom mooy arbitre bi ak ay assistant mhm. euh, ñu yaakaar ne kon euh, ki nga xam ne sax moom mooy Sa Thiès moom dafa jàppoon ne moom jàppoon ne moom bàyyi woon na jàpp ne daan na ba ki peut-être pour wane ne daan na ak yu demee noonu ba tàmbalee jubilé sax quoi mhm. mais arbitre daf leen woowaat biñ leen woowaatee ñu bërewaat biñ bërewaatee ñu gis ne kon kii di rëg-rëg daan na ko mais nag comme ni wax noonu action bu njëkk boobu instant yi moo jur coow yëpp wax dëgg yàlla mooy affaire yi ba ñu xoolaat image yi moom man quatre appuis laa gis keneen quatre appuis la gis keneen quatre appuis la peut-être nag gaaw na gaawaay boo xam ne comme ni ma ko wax sànq échappé na li nga xam ne moom mooy euh, vigilance bu kii di arbitre bi ak ay euh, ak ay assistant fi mu nekk nii nag waaw rek léegi waaw nee na ñeenti appel fekk waaw loolu loolu la wax ah instant yi boobu boobu la am loolu moom nee na ay ñeenti appel fekkente wuñ ci ki nga xam ne moom mooy ci fi nga xam ne moom mooy euh, moom mooy euh, ci suuf kon jàpp na ne moom euh, trois appui la la defoon Sa Thiès jàpp na moom daan na ko dina def recours bu fekkee sax defu ko jamono ji wax nii euh, ñuy xaarandi kon ana lan la si lan la si lan la si kon CNG peut-être di adde mais man de du ma bett CNG bu joxee victoire bi Sa Thiès ne moom moo daan loolu moom bu amee du ma bett waaw ma bett tey CNG peut-être ñu xëy rek ñu jël ne jox nañ victoire bi kii di kii di Sa bi nga xamee ne xool nañ ba gis ne effectivement lii di carte d'appui amoon na waaw lii di carte d'appui amoon na. d'accord Kalidou laata ñuy tëj rek ma bàyyi la nga wax tuuti ci làmb ji nga xam ne dawoon na démb ci diggante kii di Sa ak kii di Reug Reug. waaw ah, jërëjëf démb mel na ngoon bu neex la woon làmb daal dina dekkaat làmb daal dundaat. Mhm. donc dana sax démb am nañu ngoon boo xam ne benn ngoon ñaari jël la. ñaari mel na soo xoolee eh, ni ma amee ñun ñu ngi doon wax ni bii passé. comme ni ñu analysé woon combat bi soo xoolee sax noonu la amee. Mhm. parce que waxal na ni fekkee combat boo xam xeex la ak moom jëm nga déséquilibre mooy favori moo tax saa si bi mu ñëwee nga xam ni dafa teel approché daal di accéléré combat bi jëm xeex may ki distance gis nañ Reug Reug euh, li nga xam ne bokk na ci li yàqal ci combat bi mooy euh, poids bi mu indi. Mhm. ndax xam nga saa yi dafa nekk mbir boo xam ne am souplesse dafa am dafa am souplesse ba pare action. Mhm. ak Reug Reug dafa diis jël poids moo tax soo xoolee. daf ko euh, soo xoolee ci première action bi nga xam ne moo am en tout cas gis nañ am na cadre appui mhm. mais arbitre peut être sifflé sifflé wul gisul action bi mhm. bii demee après rëdd si la nga jàpp daal di ko daan parce que xam nañ si contact bi mhm. am ba am daal mooy image li gis moom rek ki ne mooy Sa Thiès euh, rëdd voilà rëdd daal na rëdd si cadre appui ñoom nag daañu def recours mais man jàpp naa ne su leen jox li nga xam ne mooy victoire ndax ndax jant moom soo tiimee da ngay ngi loolu nag chaque fois la vraiment mais gis nañ démb def na Sadio moo gën bëgg bëgg combat mm-hmm. soo gisee ci lépp ci ambiance bi lépp ci forme physique def na démb Sadio moo gën bëgg bëgg ci combat bi mm-hmm. loolu daal lañ doon wax euh, euh, en tout cas lamba si aussi war mun am faar surtout combat jàmm yi combat yu mag yi. am na vaar vaar tam dégg naa foofu peut li nar nekk problème bi moom mooy tey euh, bu fekkee dañ koy appliqué waaw mais ah naa loolu waaw ñu koy def waaw peut-être combat. ok ñu koy def ko si si du mbapat yëpp la ñu mën def. voilà effectivement nekkul combat yëpp la ñu mën a def baax waaw. waaw Dakar rek arène arène naa te Dakar surtout yëpp nag. maa combat yu mag yi. yu mag yi quoi nga xam ne nekk nañu par exemple catégorie kii catégorie yu mag yi mooy ay stade yu muurlu bala yooyu ak ay ay ñoom boo ñaa quoi. maanaam combat ñaa ngi combat yu mag yi war na. mais boobaa maa ñeneen duñ ci maa ñeneen duñ ci gis seen bopp ñoom it ne dañ leen xeeb. ñoom daal foog naa lépp. naa la ñu war a indi vaar parce que léegi da ngay gis ku def ne defuma. mais mbapat ko am fépp mënoo indi vaar mais combat jàng yi combat yu mag yi moom nga am am tension diggante géej waaye par exemple parcelle géej waaye par exemple digg bi mel noonu. te démb même d'ailleurs jeexee dégg naa fa xeex bu métti jot nañ faa xeex. dans le a ay yàqati lamb yi daañu siy ñu ngi bëgg confirmer li gars yi wax de askan lamb dañu sikk. Mhm. ndax xam nga li am vraiment c'est trop. mën nañu vraiment def a discipline ñu daal di contester def si recours mais dajji siis ak des deux camps di def loolu daal gars yi dañu yor dañu yor ku dajee di ay siis ak sa mbër mu jeex tàkk sa mbër sa mbër sa mbër sa mbër sa mbër bay bëreet ah mais ñi ànd ak moom la mbëri ah mais ñaan ak moom la. loolu bu ko defee ëllëg di nga gis ñoo xamante ne nii du ñu àndax mbër mi. dina am ñoo xamante ne nii du ñu mbër mi mais pour yàqal mbër mi dina tax ñu dem stade dajji ay toog fii fi supporter mbër mi di toog toog fa dajji ay chaise loolu yëpp tamit jar naa bàyyi xel bu ñu mënee daal comme am na caméra yi mat na nañu gis ñi nga xamante ne nii ñooy yàqat bu ñuy daan ñu daan ñooñu man si loolu la ànd. voilà. wala ñu delloo wala ñu delluwaat ko li nekk bu rek mooy ñëw dañuy laal ñu laal lépp ñu daal di bàyyi suuf suñu bëri comme ni doon def bu njëkk. <laughs> waaw ba tey euh, buuru Kalidou soo leen amul loo soo leen amul loo leen si yokk ñu. ñu waxtaan tamit si match bi nga xamante ne nii war naa daw diggante Sénégal ak yi nekk tey jii nii à 14h su ma juumulee ngeen am loo leen ci indi rek rapidement ñu tonk ko daal di tëj. waaw soxna Asel noonu la demi-finalu CAN u muy gaynde Sénégal yi nga xam ne seeni at euh, yeggagul si ñaar fukk ñu war a dajeeg nag euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Tunisie ci kon demi-finalu euh, CAN U20 boobule si nag am yaakaar ci li nga xam ne wane nañ ko ba fii ñu ngi si am yaakaar bu baax a baax ne kon dina dinañ jël ndam li sax permettre leen ko ñu qualifier final pourquoi pas dem ba jëlaat li nga xam ne moom mooy coupe bi. wante it euh, gis naa yeneen am commentaire gars yi su commentaire ne maanaam bu fekkee am nañ ci victoire day nekk benn correction pour waa Tunisie quoi gannaaw li seen président bi def noonu <laughs> nee nañ daal yàlla nañ am ndam boo xam ne kon dina nekk benn correction bu ñuy infliger ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoom ñooy waa Tunisie gannaaw kàddu yooyu nga xam ne euh, seen njiit li yëkkati na ko jëmale ko ci Afrique subsaharienne comme ni ñu koy defee saay su nekk rek Sénégal ba fii mu toll nii euh, daan na ko matcham yëpp da ko gagné te su ma juumul tamit encaissé gul benn but ba tey euh, Kalidou ma bàyyi la nga am loo ci indi rek ñu daal di tëj. waaw comme ni nga ko waxee am na meilleure attaque presque encaissé wul mm-hmm. lu baax la donte ni Sénégal Tunisie du yomb ndax euh, derby la en Sénégal a dëkk boo xam dëkk arab la gis nañu quart de finale bi contre Benin donte ni Sénégal mooy ëpp doole gis nañu match bu métti. boo xam ne Sénégal convaincre dans le jeu mm-hmm. mais li génne Sénégal ci marché bi mooy dañu costaud sur le plan défensif défense boo xam ne dafa agressif euh, nga xam ne défense bu baax la ñu amoon défense boo xam ne dafa agressif kon moo ñu permettre ñu am victoire ci ki xam ne mooy euh, Bénin mm-hmm. mais tey benn match demi-finale door toog la quatorze euh, heures la yaam te am nañu yaakaar ne gars yi am nañu am nañu lépp lu ñu war wu il suffit que vraiment ñu am un mental très fort ndax soo xam naari moom nga bal ñu xaw caay caay tuuti il faut que vraiment te aussi ñu leen ñaanal ñu am ndam comme ni ko waxee rek au moins ñu corriger président tunisien boobu nga xam ne moo doon daal. Kalidou ma bàyyi la nga tëj benn yoon rek ñu daal di nga tàggatoo ñu daal di tëj ba ginnaaw ëllëg incha allah. waaw amoon nañu mbégte ñu la woon maa ngi lay gërëm Asel bi ak sama naataango Koumoundo Fenn ak vraiment amoon nañu mbégte te di aussi gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu suivre à travers suñu planète ah travers suñu suñu suñu suñu plateforme seneinfo mm-hmm. point net seneinfo international di gërëm bu baax euh, ki nekkoon réalisation bi Abdel Diallo di leen jox mm-hmm. rendez ci fan yii incha allah. Mm-hmm. jërëjëf Kalidou Bour Sine ma la nga tàggatoo ñu daal di tëj ba mercredi incha allah. dama lay jaajëfal rek di jaajëfal euh, sama naataango bi di Kalidou di jaajëfal suñu cadre bi it. di jaajëfal mbokk internet yi ñuy bàyyi xel euh, saa su ne suñ différentes plateformes yi ñu leen fàttali site bi sene info point net chaîne YouTube bi sene info international mm-hmm. ak it euh, di ngeen ñu fekk Twitter fekk ñu Instagram ci turu sene info boobu lekom ñu ngi leen di jaajëfalaat rek di leen jox dig daje ginnaaw ëllëg euh, ci beneen édition bi yor yoru sene info Euh, jërë ngeen jëf Buur Sine Coumba Ndoffène Diouf Kalidou Ba di leen jëfal bu baax a baax di jaajëfal également suñu caméraman bi di jaajëfal euh, internautes yi nga xam ne ñu ngi doon suivre à travers seen seneinfo point net seneinfo international seneinfo international di leen jëfal bu baax a baax di leen jox euh, dig daje ginnaaw ëllëg incha allah jërë ngeen jëf. Restez toujours informés sur seneinfo xibaar yu wóor te leer ci bile jamono.

xibaar yu wóor te leer ci biir jamono